leen ci umb donc loolu am nañ ci mbégte loolu donc tey jii comme nañ koy waxee justice moom am na problème Sénégal euh, et c'est euh, ah mille mètres ñu dafa doo fi nekk te pourtant enquête moo xam ngeen justice bi doxee Sénégal euh, Sénégal dafa configuré woo mooy fal procureur président moi fal euh, des juges di euh, est-ce que paré pour ma boulot ñu donc euh, muy Macky Sall muy justice manam ki exécutif justice exécutif mom moy législatif assemblée nationale day am majorité garantie donc nous nous lu mu

pourtant Bassirou Diomaye pourtant vous na def non. non il l'a pas fait il a jugé nécessaire nga xaar waxtaan ak askan nan lañ bëgg configurer seen justice est-ce que man maay choisir pour eux seen ben procureur est-ce que maa leen choisir a choisiral ci sama bëgg-bëgg seen benn doyen de juge wala

Bassirou Diomaye Faye bi nga xamni amna prérogative am nay doole war ko def mais def ko dafa jël affaire bi yobbu ko tek ko ci penc ma ne la kaa leen ñu waxtaanee ko sincèrement kon ça aussi c'est du jamais vu c'est du jamais vu ni entendu au Sénégal tel ni mu def ni tay pour loolu la pour manam sénégalais wax légui lan lañu bëgg doyen des juges wala procureur wala lan lañu bëgg en fait.

patience parce que dafa am nu may doxee te damay jomb nit di ma forcer ni ma war a waxee ak ni ma fu ma war a wax ak li loolu dama koy jomb quoi bés bu ma ko defee rek doon góor jigéen nit kenn du ma orienté man dëgër naa bopp tatu dëgër bopp boo xam ne wowle gëm sama bopp am vision doomu aadama ancien spermatozoïde futur cadavre na sàkk ko surtout si kaw suuf ku mu mën a ne defeel nii wala waxeel nii kooku may ma ko papa may ma ko yaay waxuma <laughs> laa ay nit yo xamni ci mbedd yi lañ xamanté may ma ko kenn donc da nga may déglu par force wala nga xol leneen on continue donc euh li nga xamni ni liggéeyu euh, le président Diomaye Faye dañ ko wara magnifier dañ ko wara magnifier dañ ko wara manam maanaam jëmmal dañ ci wara wax sénégalais ñu xamni le président fi la joggé fi la jëm li lay def mu don lu am importance Légui lu xamni yeen ni da ngeen ko war taxaw don bouclier bi protéger ce projet là parce que projet bo xamni ni ndam lay mujjé ci ndam lay mujjé et c'est force kenn mënu ci dara ndam day am par la force doole mbam donc euh, ñi ngi suivre euh, assises yi assises de la justice bi et inshallah bu paré euh dinañ ci euh, yéeyaat yàbbi ci mais pour l'instant fi ko tek fofu la na doxal na jëm kanam dara du ko téye ay di woo sénégalais yi ñu protéger sa projet là maa ngi leen ciy woowaat encore une fois protégé leen projet bi na leen ko jaral na leen ko jaral teg leen ci seen bakkan teg leen ci seen bakkan protéger euh, projet bi yéen ko mun a protéger mu yegg fu mu jëm dëkk bu ñu dëkk ay yàqkat dañ cee bari ay janaxu bajoor dañ ci bari ay golo dañ ci bari ay kaña dañ ci bari

di yàq projet bi di yàq projet bi ngay seetaan loolu du ngor parce que dafa am ñu reyante ngir ba dañoo dee quatre-vingt-sept doomu aadama ñoo dee yoo xam ne xajoon nañ gënu gënuñu leen nday gënuñu leen bàyyi te ñu protéger projet bi lañu leen fi jëlee donc ñu fi nekk ñoo war a gën a mun a protéger projet bi que ñu fi jógee bu fekkee ni nit yi ñoo xeex xeex xeex xeex bañ a rey leen yow ñi nga xam ne dañ laa tëj kese génn la nga génn di dox wala yow mi nga xam ne tëjuñu la yaa ngi dox say soxla ñu la proté leen protéger projet bi jaral ñu protéger ko ba dee ci war ngaa am ngor gu day ni jël sa bopp bi jaayante ko jël sa bakkan tay la ko ci projet bi mu jaral la ko ba doo seetaan doomu aadama bu mu neex jóg wax lu ko ci projet bi yàq projet bi toroxal projet ay nit day perdu des perdants yoo xam ne torox yàqu lu doon des a def yëpp a est après ñu mujjee doon projet ne leen projet jaral encore une fois ne projet bi jaral doon leen ay garmi protéger leen projet bu leen nangu benn doomu aadama di yàq projet bi projet bi dafa am ay ay mutilé dafa am ñu ci gaañu dafa am ñu ci dee dafa am ñu ci dugg ci kaso yi dafa am ñu ci taal seen kër yi dafa am ñu ci tiire seen oto yi dafa am ci taal seen oto dafa am et cetera dafa am dafa am dafa am donc projet boobu noonu ñuy dund ñu waruñu gën dañoo war a waruñu gën a waruñu waruñu trahir ñi dee ci projet bi ñuy dund waruñu trahir ñi dee. on préfère mourir dans la dignité que de vivre que de vivre dans la lâcheté donc nañu protéger projet bi contre yàqkat yi nañu ko jaral nañuy reyanteeg ñoom nous dóoranteeg ñoom nañuy nañuy nous ñoom bakkan ba ñu ñun lii jaral nañu ko il faut projet il faut protéger euh, les leaders et les meneurs de ce projet maa ngi ci wax di ci waxaat ci waxaat ci waxaat ci waxaat parce que amal solo jël leen protéger protéger ngeen jëmmal ko liggéey liggéey bu président di liggéey ak la ak ak ak Ousmane Sonko ngeen jëmmal ko ba pare protéger ko da ko jaral bu weesee loolu comme man nu ma ko waxee dama jox confiance le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko li ma waroon def xeex bi yëpp def naa ko sincèrement je me suis corps et âme man maay premier. victime combat bi ay premier victime bi gouvernement Macky Sall man la ñëk a song ci bëpp sénégalais avant mort bu mu commencé ray à part ñi mu ray ci nit yi dund ma ci nit bu mu ñëk attaquer bu mu commencé mars 2021 un mu commencé ray ci la jël le dossier de l'affaire affaire Adji Sarr mu tegu ci samay loxo ma commencé di ci def balaa maa pare l'affaire Adji la ñëw wërale sama kër taal ko maay premier victime après les morts bu subir injustice ak doole yi Macky Sall son gouvernement bu ñëw pour rey toute ma famille loolu taxumaa démissionné taxumaa daw gis ngeen fu mu tàmbalee ba tey jii maa ngi nii di wax donc dama am benn ligne de conduite bu ma ma gën mus a gëm nekk ci di ci dox loolu moo indi tey jii maa ngi wax daane naa Macky Sall Macky Sall nekkatu dem naa ba sama dëgg moo mun ay fenam maa ngi nii di wax seyal naa ko effacé naa ko dans l'échiquier politique nit yu mu indi woon yàq naa leen yàqal naa leen jële naa leen fii ak sama stratégie que mu ne opération rëbb dëmm sama lépp fexe naa fexe ba yàqal leen lépp lépp ba tey jii ñoom ñëpp ñi ngi tey ñi ngi aux oubliettes en attendant ñu leen di traquer dugal leen ci kaso donc dama mus a gëm dama ci mucc a jàpp ne dëgg rek mooy mujj loolu lu mu mus a gëm la maintenant comme nu ma koy waxee dafa am tam nu may doxee nu may doxee dama jàpp ne man Mollah Morgun sama société ni ma ko xoolee société boo xam ne la dafa corruptible doomu aadama yi mënuñu muñ dañ leen di jënd ci bu may tuut tànk ba bu ma toll nii laa gis ni sénégalais yi lan moo tax ñu leen di jënd lan moo tax ñu yomb Faut que achat de conscience am ay élection bu tambalé ñu commencé leen jënd sen carte yi jox leen ay ceeb ay dugub etc etc bu ma di rap ba léegi lépp ko a kaas man dama dans ma vie doomu adama ancien spermatozoïde futur cadavre war na mënu dund Sénégal yaayam jur ko mu dem ba muy war a jënd war ma des a noppiloo mu war a jaaral jaaral man pour man loolu je préfère bu ma ko naree dundee yàlla ma yàlla faat yàlla bu ma passé une minute sur terre loolu musuma ko gëm ne war naa mun a torox à ce benn doomu aadama ñëw ba may jéem a jënd wala di ma corrompre ba may dem di def bëgg-bëgg moom papa du ko am ci man yaay du ko am ci man benn doomu aadama sur terre du musa yàlla may ko kàttan ak mën-mën Ousmane Sonko Jomaay Faye ak Macky Sall ak ak ku mun a àndal ci kaw suuf koo xam ni danga yàlla dina la may un nga mun ma korom ba ma doon tey jii koo xam ni damay def li nga bëgg jamais jamais lu ma gëm moom mooy combat yi fi ñu toll nii dañ ko war a réussir ak fu ñu jógee ak fu ñu jëm léegi nag combat bi man yàlla moom ma ci def leader un leader charismatique de ce combat je suis système qui au fin fond des choses Nous ñu au cœur du système Madame, taxaw ci système bi le virus bi di information yi di loqati di Il danger pour doy système bi ni infiltrer

ci Macky Sall ak i ñoñam loolu musa mus a ci loolu la musa né ne nak loolu benn fa la bu la yóbbu ci tay nga taxawé ni suba nga taxawé ni gina suba nga taxawé ni bu nga xam li nan nga mëna def stratégie bo wara mëna tek pour mëna infiltrer foofu dugg fa loolu samay pexé la man samay pexé man te il faut ma am intelligence la yàlla jiitale nga do leader il faut nga am ben intelligence bo xamni waro nuro ñi lay déglu waro bok ak ñi lay déglu ay ondu parce que fa nga nek yow pour mëna xam information bu nara ñew ak bu nara dal ak nit yi nga xamni ñi ngi taxaw di xaar nga indi leen information ak fa nga wara mëna jëlé information ak non ko koy lolu ñom mënu ñu ko xam té soxla wo ñew naan leen fi la koy jëlé ak ni la wara def pour mën ci jot man l' essentiel mooy lépp lu ñu concocté muy bomb buñ bugg a dóor sama waa ji damay xool nan laa ko mun a désamorcer wala nan laa ko mun a contourner nan laa ko mun a yàqee loolu samay pexe la man loolu pexe yooyu noonu bëri yooyu noonu moom indi fii tey pexe yooyu ma doon def di désamorcer ay bomb di wàcc fii di fatt fële di dóor fii loolu lépp lu ma ko may lii la tey mooy victoire bi ngeen am tey di ko jëriñoo kontaan ci trop

ñett ñi fu ñu doon dem dañ doon daje fu ñu dugg ci information dañ fay fekkante ñett ñi Ousmane Sonko Pape Alé Niang Mollah Morgun c'était c'est les leaders révolution les leaders lu yàlla def ak ku ko bëgg ku ko bañ les leaders am tey ñett ñii la Diomaye sax bokk ci Ousmane Sonko la Pape Alé Niang Mollah Morgun fu ñu doon dem ñoo bokk même information ñooy bokk même longueur d'onde ñooy waxandoo même chose ñooy demandoo au champ même chose kenn amul kenn kuñ tollale ñett ñi kenn ci ay information ci joxe ay information ci génn ay tur yu Sénégal mosul dégg bu ma ñëwee di wax Idan Perez Gabi Perez ci la Ousmane Sonko ñëw même chose wax bu ma ñëwee di wax Moussa ci la Ousmane Sonko di jox Moussa moom moment boobu la Pape Alé Niang di wax Moussa Fall ñett ñii

beneen sénégalais du la wax ne Macky Sall jëm na dugg ak moom pour teg ak moom nangam déedéet keneen newul woon fii danger keneen amul keneen nii de nag mun nañ toog am ay di rêver non man do ok kenn xeebul sa xeex mais dañ ne les trois leaders de cette révolution là ñett ñii la Ousmane Sonko Pape Alé man mii moo laa moo gën ñu xeex ko ba toll fii ñetti ñi nak musuñu réero musuñu réero ñetti ñi musuñu réero ki day dem au front dem jëli fu tang ba man mi ñu yoni ma dem fu gëna tangé loxo indi bu ma indee pap ala ñaar bëgg ñew mo euh, mottali ko affaire ba pat ñu jàll ci leneen nonu lañ ko doxale ba tay ji yalla defal ñu ndam bu ñuy fexé seen vidéo monté bobu di ko préparer parce que dam nañ duggal sénégalais ci ay get happens lo Sonko ay wax Sonko lu nekk diaboliser ko amuñu dara fuñ ko téye ñu né xaaral ñu dem fexé ala kulli al indil ko dara il faut ñu am luñ tek ci table bi sénégalais mu jaral leen ñu jël Gabi Perez Idan Perez jël gendarmerie nationale génne leen fa sànni leen fii nga xam ne moom mooy Almadi jël foofu en face palais de la république dugal fu Idan Perez ak Gabi Perez jël seeni matériel teg jël seeni israélien indi matériel yi teg jënd seen armement lépp pare il pensait que mun nañ moxoñe Sénégal en une seconde jóg dem seen c'était le moment où Macky Sall pensait que xaaral léegi am na mun Ousmane Sonko mun naa tëj ki nga xam euh, le grand Papa Alé mais comme Mollah Morgun est là-bas comment faire pour dire ko traquer tànc ko noppi la en attendant ma mun a dougal li nga xamni mom moy procès bi fekk lepp nee salaw mu mun a indi vidéo faux vidéo monté pour ñëw diaboliser ko ba paré euh, am nu sosal ko takkal ko tiiñal ko etc etc c'est ce moment là que Macky Sall a essayé de me joindre de me parler de calme de euh, dal ay euh, réew bi c'est réew la ay réew mi bo da nga ci wara a da nga ci wara participer waro ko tal sa même bo fi nekul am nga mam bu fi teud eh, ana sa papa ma sa papa ngi dundu ana sa yaay mi ngi dundu waw mais budul ñom ñep am nga mam yu fi teud te dekk bi bu tàkkee say sa mam teud na fi ki ñi ngi ci bammel yi nangam ak nangam di jema dox sama main, mais j'ai été nit def tek di deglu muy wax des conneries bu mu paré ci laa ñëw wax ni woona ma boobu chef de chef de kiyam bi sax tey ku mu def général bi moo fi nekk mooy Mbaye Cissé moo newoon aide de camp et pourtant Mbaye Cissé ci boppam moo jël téléphone bi moom ci boppam woo ma paas ma ma dégg ko mu wax ay conneries ay waxi doxam loolu lépp mi ngi préparé nan la mun a def pour jéem a tënk parce que mi ngi jéem a waajal nu mu dugalee Ousmane Sonko ci kaso bi dougal pap Alé Niang ci kaso bi tënk kële ne la parce que renseignement généraux joxoon nañ ko information yeb mais man j'étais là man tamit ci seeni pexé di pexé samay pexé di pexé samay pexé lu gën la wara war jaaxal sénégalais moy lan moy moment boobu pourtant pap Alé Niang da doon wax quand j'avais sorti cette photo là du génnoo ma vidéo génnoo dara photo la génne bo xamni ni Ousmane Sonko la jël même c'était même pas bien fait bien fixé tek ko ci ben ki bo xamni yaram baangi ngi bo boo baa ñuul donc ku ko xol xamni li faux mais parce que j'ai cherché le faux j'ai cherché du faux je cherche du faux beaucoup lu original il faut être bête pour comprendre qui beaucoup lu original je cherche du faux ci pas xel yi laa bëggoon dugal faux du faux du fake faux faux faux la doon bëgg a donc j'avais pas droit de def lu le formel je voulais du faux parce que je voulais mettre dans la tête des Sénégalais du faux préparez-vous à du faux le faux va venir parce qu'il prépare du faux donc on vous prépare déjà du faux dans vos têtes ah, donc du faux le faux le faux le faux faux il fallait créer du faux dans du faux il fallait créer du faux pour amorcer une bombe, il fallait créer du faux dans du faux. ma ñëw indi photo bu am bopp baa ngi ñuul nul, gaa ngi xees kanam gaa eh, ñuul bopp baa mu def ni dëng eh, eh, donc quand tu vois tu sens que ça c'est du faux mais pourquoi j'ai fait ça mais heureusement ma soloon ko tubéy <laughs> parce que bu doon ñoom Ousmane Sonko bu doon ay ñoom euh, APR duñ ko solol tubéy de déedéet <laughs> kañ lañ kañ lañ bëgg Sonko ba koy folal solal tubéy mukk APR ak seen xeex ñuy so ñuy ñuy yaram kese <laughs> solo Ousmane Sonko tubéy de bu doon ñoom la tey ñooy monté photo taatu neen lañ koy def ndax mosuñu may Ousmane Sonko tarfatal ay nit déedéet boo gisee Ousmane Sonko bu muy sànni karaté bi def sànni tànk bi sax defal lañ ko ay ay bagaas bagage ko ay bagaas nii fu ñu ko mun a toroxalee rek jéem nañ ko donc bu doon ñoom ñooy monté tey jii dañ dañ koy defal bagage comme nu ko ndeyam juree mais duñ ko soloon mu ko <laughs> parce que <laughs> waa APR duñ soloon Ousmane Sonko tubéy <laughs> jéemuñu ko sax jiñ ko viol takkal ko tijjal ko ba pare di ko soloon tubéy ah kon dañ koy bëgg mukk donc tubéy boobu rek am na lu muy firndeel bi rek am na lu muy firndeel ne kii <laughs> vraiment bu dee doxoo sax war nga xam ne kii am na lu muy wut pourquoi mu solo ko tubéy lu solo ko tubéy te APR solo tubéy te lu ci gën a mooy coow lu lu muy riir yëpp waa APR kenn jàppale wu ma parce que xamoon nañ ni xaj bi am na lu muy jéem ba jaxate attention moytu leen waa ji am na lu muy jéem ñoom ñëpp woowante réunion waa APR attention bokkul ci ñun de janaxu bajalo am na lu muy jéem gisoo benn doom bu nekk APR bu ma soutenir loolu rek bu doful rek war na mën a xam ne kii am na lu muy lu muy pexe parce que bu fekkoon ci ñoom laa bokk wala dama leen di jàppale dinañ ma soutenir mais ci lañ génnee ñoom ñëpp def ay live attaqué ma waa APR seen ñi nga xam ne dañ leen di fay waa APR di leen fay ñu leen di live amul ku ma ci waxal lu rafet donc ñoom dofuñu seen renseignement généraux wax nañ leen ni kii xaj la am na lu muy wut bukki bu sango rubuy la da ko dugg ci ñun bukki bu sango rubuy la attention ñom ñep genn def ay alerte attention attention attention attention ñom ba jaxate ñep ñep yërëm waxu ci dara lu baax da ngay jaawale ay événement yërëm livre la genné bobu après la <laughs> yërëm musu ci wax lu baax donc waa APR yi nga xam ne ñoom am nañ information ñoom xam nañ ni waa ji am na lu muy fexe <laughs> parce que bu fekkoon ni ñoom am na ñenn ci ñoom ñu génn jox ma xaalis war a dara dañ dem na leen eh jàppale leen ko dem leen jàppale Mollah Morgun dem leen jàppale ko yéen yéen ñëw di jàppale si déedéet ñoom ñëpp a moytu ñoom ñëpp a daw ba pare def ay annonce nag ñoom baa jaxaseeg ñëpp moytu moytu leen moytu leen moytu leen bokkul ci ñun bukk bu sàngo tërubay la am na lu muy jéem def nañ ci live ñoom ñëpp saaga ba wax <laughs> mais boobu ñi nga xam ne ils étaient de ce kenn waxu ci lu mooy du Ousmane Sonko pourtant moment boobu noonu Pape Alé Niang mi ngi def ay live Pape Alé Niang doon def ay live de musul wax ci man lu ñaaw <laughs> donc contrasme boobu rek nit bu am bopp war na mën a xam ni non ki am na luy fexe <laughs> mais xam nga bandi nag doo def ba pare di wax coow du bëri boo ko bu ma doon rek yàqu ko il fallait ma mindset mindset gars yi taw taw ci Sonko ñëw waa Sonko moo laa mën leen <laughs> heure añ mën leen ah voilà de <laughs> bàyyi leen ko da ngeen concentré wu ci li ngeen nekk liggéey leen concentré wu leen ci li ngeen nekk moo laa mi ci lu mu nekk xam na ci lu mu nekk concentré wu leen gaa yëpp tiit ci boolu añ ñoom ñëpp téye seen loxo waa Pastef yëpp yi demoon boole ji Sonko loolu la leen wax wax ju saf-saf ñoom ñëpp téye seen loxo jo jom mi gaa yi génn moo la mais yow ngay wax Sonko wala mais parce que Sonko lu mu bu ñu demee di ko boole lii nangam nangam ñoom ñëpp lem ko ba mu waroon toog kenn ci ñoom génnul wax kenn ci ñoom bindul page ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ba léegi bindul ci man. El Malik ñaa bi El Malik, waxul ci man amul benn waa Pastef leader bu wax ci man ñoom ñëpp nañ teg parce que Sonko tel na a mal. tel na leen xamal ni attention attention waa ji dafa am ci lu muy dox Pape Alé Niang di def y ba des musul wax ni moo laa lii moo là. »» Il le très intelligent parce que ils étaient à jour quand même ils étaient à jour mënu ma wax ak ñëpp am na ñoo xam ni ñooñu xam nañ li ma fu ma jëm xam nañ fu ma jëm ak te kan kan laa dem nii fan laa jëmi ñoom xam nañ lépp mais nag loolu du ñëw de leen ko wax quoi yéen parce que ma la ko waxoon rek lu may doon wut du ma ko jot kon tey duñ toll fii man tey làmbaay ñaaw na yàq nañ ñu bu yàgg mais bu gars yi amoon tuuti seetlu ne lan moo tax ko waxu ci lan motax pap ala ñaan bi di live di deug waxul ci mola lan motax leader pasteur fi kenn yeyul yabbi ci lan motax lan motax wa aper jappale wuñu mola lan motax poser ay question kenn ci ñom mais gaay ay ngaaka lañ <laughs> ku nekk di tuba ah! mané no ñi ñom ngaaka lañ xamuñu dara lu xew en attendant dañuy tok xaar ñi tok xaar parce que dafa am fi ma jëm te fi il faut ma sanni len amazon il faut ma am luma len jox ñoom leader yi ñu am lu ñuy sex bu ñu sexee ba pare dama leen di génne comme jën ci ndox mi ñuy lappi lappi ba seddu guy ñu fiirir leen il ba sànni amason ba te amason bi heureusement moo ñu jox lii tey moo waral ñu def procès wax ay waxu vidéo dina génn vidéo nañ ko kii vidéo nangam tey ngeen dee tey lii Sarkozy Bouziki tey fii Sonko walaay lay la laa anamu furaas dali xëddeen furaas indi seen i caméra teg indi seen i projecteur teg indi lépp furaas dali xëddeen ba léegi teguñu image <laughs> ba léegi teguñu image muy liggéey nag boo xam ni ginnaaw yàlla doomu aadama war ma ko sante bu ñu demee ba biir tribunal fajar ngeen ñëw fa fekk fa ab caméra bu ñu teg fekk fa écran géant bu ñu teg fekk fa lépp te tegaluñu leen fifteen fekk fa lépp gaa yi doon wax vidéo yëpp kenn mënu la ci indil tarfatal ay ni te ñoom ñëpp a jógandoo di wax loolu ngeen war a xam ni ginnaaw yàlla man maa ko liggéey maa ko liggéey ci samay pexe maa ko liggéey ci samay dugg ak maa liggéey lépp ginnaaw yàlla loolu la ma Sonko di sante ba giiru dundam ci liggéey ba ma liggéey ca la salte lañ doon jéem a taqal préparer seen procès jël Adji saar waxloo ko ay wax ma ne la lii la Adji Sarr di wax <laughs> balaa gaa yi dem ci procès bi lépp laa leen wax Adji Sarr lii lañ ko waxloo ay massage body body lii lii laa ñu takk dugal benn vidéo boobu ñu monté seen film boobu ñu monté gis ay dof yi juuxu lay lay la laa noo jàng duñ leen jox vidéo bi ngeen di dugg naan da ngeen di xool ak c'est un film très bien fait bien monté ñu taxaw di ci lu yëpp ñu defee ko ci sàkku si jël seeni ndox bu def ay couleur sànni ci ay fleur rafetal lonku bi lépp ñu def seeni film tiene el oro. loolu rek laa gisul sant yàlla maa ngi sant yàlla alhamdulilah vraiment am naa fierté boobu li ma neex trop yàlla may mu gudd fan ak wér ba ma dem di ko nettali doom ni en deux mille vingt trois deux mille vingt quatre doon nañ fi sosos gor fii ci Sénégal bu ma amul fitu wax man la bokk naa ci góor boobu bokk naa ci ñu ko setal bokk naa ñu xeex xeex ba mu toog tey bokk naa ci <laughs> billaay wallaay tekk loolu génnuma fenn maa ngi toog teg teg teg nag loolu lépp lii lañ ci bëggoon am nañ ko moom mooy mbégte boobu ngeen am ko ma comportement boobu ngeen am ko di dem ba président Diomaye Faye doon président ma ne leen mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko xeex bi mosuñu ko bàyyi bu ñu demee ba gaar jom mi fépp jaxasoo Sonko nekk ci kaso bi Diomaye nekk ci kaso bi gars yi naan waa Pastef du ñu dem di suul nañ parti ba foofu lépp lëndëm fépp lépp lëndëm Sénégal nekk ci bët guddi gu bët setagul moolaa ak i pexem moolaa ak i pexem moolaa ak i pexem ak i pexem moolaa ak ak i pexem moolaa ca biir palais ba moolaa ak i pexem moolaa ca kaso ba moolaa ak i pexem moolaa ci kanamu Sonko moolaa ak i pexem moolaa bëgg na surux Diomaye ak Sonko ak ci biir ci biir ak i pexem laa wax de ba ne surux jël jo Sonko ak Diomaye ci kaso bi ne leen tàngit génne Mollah ak i pexem boobu gars yi ñoom ñi ngi ci fële fekk Mollah ba léegi mi ngi ci pexem ba léegi mi ngi ci pexem bàyyi ma pexe ba ci biir kaso ba maa ngi samay pexe ba ci biir kaso ba maa ngi topp Sonko bu entraîné ma ne la entraîné na bu ñu dugalee felo ba ma ne dugal nañ felo ba bu ko yaayam seet see ma ne yaayam ñëw na de bu ko bu ko jabaram yi seet see ma jabaram yi ñëw nañ de Sonko ba ci biir hôpital ba ma topp <laughs> ñi sampal perfusion ma leen sampal nañ ko perfusion de gars yi dugg génn ne jox nañ ko tandarma ma ne ñu ko tandarma bi de gars yi génn def conférence eh, ñu ko gisee ma leen mel non de ni la démé de <laughs> bo ma ngi top rek sama waji man sama waji rek ko ma ñoroon gisuma lenen sama waji rek mo ma ñoroon ma top ko di top rek bu duggé ci kaso ma dugg ci kaso ba nek rek mom di ko bu kaar yi ñëwee moo laa ba ah, moo laa <laughs> moo laa li mu ngi doon rek moo laa moo laa am la ree gars yi ñëw non soo ko wii kii mi oh, yónnee nañ ko sa yóbbante maa ngi toog fii di connecté ak moom ñii sànnante ay salaamaaleykum maaleykum salaam di kaf di ree man ak moom te gisante wuñu mi ngi ci kaso ba ma fekk ko ci biir kaso ba mu dem ci hôpital ba ma fekk ko ci biir hôpital ba ñu koy samp perfusion may may wax ak moom ñu ba bu mu fa gars yi dugg génn def seen film ma gën na dañoo film de gisuñu sax Sonko ba ñu ñëwee wàdd génn wàdd génn na leen wàdd ci bopp sunk da leen bëggoon recevoir wàdd na leen déedéet ne ko Sonko da nga sonn mënoo recevoir kenn xaaral ma jox leen rendez-vous vendredi bii di ñëw boobu mercredi la woon gars yi génn gis ñu sunk wax leen ñoo ñu dellu def conférence patali bët xaw a jooy buñ ko gisee gisuñ tus ñu tus man rek rek mais boobu oh, man maa ngi sama wetu waa ji sama wetu waa ji rek ne man waa ji fu mu ne ma ne ko sax man ak yow ba pale man ak yow ba pale loolu rek laa gis man ak yow Sonko ah ko man ak yow ba pale moo laa mun na nekk day nekk man ak yow ba pale ok bismillah nañ dem tey yàlla def na mais am nañ ci ndam alhamdulilah mbégte ba ma bàyyee leen ko moo tax victoire bi man rek maa ci jooy man rek maa ci jooy xam nga coono boo ko dajee dem ba daj coono daj coono daj coono gis nga bu ñu demee ba gaa yi di jubilé man ci laa jooyee fa laa jooyee ndeysaan gars yi di jubilé Sénégal Sonko man may jooy gars yi dem jël samay ndeysaan sama xol fees dell parce que xamuñu lu may sentir réellement lu may sentir. ñun tëj kaso sax ñu noonu ñun tëj kaso sax jooyu ñu ko benn ko man victoire bi gars yi di subi ma dem faj nag sama góom yi quoi gaa ma dem fa xaaral ma dem noppali ko tuuti nag sonn ñu jógee ak fu ñu jëm la ma ca nag <laughs> moo tax man rek a jooy te xam naa la may jooy te xam naa au fin fond lu ma ndax fu ñu jógee dafa sori dafa metti dem nañ ba leader yi sax gisatuñ leen leader yi Pastef yi sax dañoo seeyoon complètement leader yi Pastef yi seey affaire bi jaxasoo billaay wallaay <laughs> waaw a jooy ci kaw de ñëpp gis ma jooy léegi nag suñu waa ji ndaanaan la man dama ko jox confiance ba pare dama ko jox cër dama ko bëgg lool la femme de Ousmane Sonko ne m'a jamais informé musuma wax ak ñoom musuma wax ak la femme de Ousmane Sonko ci lu jëm ci Ousmane Sonko dama ne man dama jiital gaa yi ay kilifa lañ dama jiital jomaay jomaay waa ju baax la waa ju jub la waa ju la aussi xeex bi bu mu tàngee dëgg dëgg dëgg nee moom laa doon gis moom laa doon dégg yónnee ma mailam yónnee ma numéro ma ajouté ko moom sax moom moom moom sax moom ma wër déjà le président Diomaye moom sax moom ma wër man jotoon naa ko fàtte ay gars la ñu woon da doon woowante téléphone bindante waxtaan chaque dix huit heures wax na ko sax ci interview amul dix huit heures buy jot du ma woo ñu waxtaan kaf ree dama ko doon reetaan loo nag ñuy ree Diomaye loo moo laa yow xeex bi bu muy tàng jël moom laa gisaat moo ñëwaat fël xaw fu mu jógee xaw nu Diomaye def